salaamaaleykum mbokk internet yi ñu safoo di ñu seetaan saa su nekk euh, tey ñu amoon mbégte ak contentement tey ñëw sees si koo xam ne kon dootu ko présenté fii ci Sénégal mu nekk Oustaz Iran Ndao euh, dañ koy jox kàddu yu mu nuyoo après ñu dëkk ak moom ci waxtaan Oustaz ñu ngi lay nuyu di la ziar. waaleykum salaam wa ñu ngi leen di fay nuyoo nag ñaan la rek ñu ngi leen di ñaanal yenn yàlla nangu ñaan di leen ndokkeel ci at mu bees bi di ci ndokkale ñëpp jërëjëf. Oustaz dañoo gis ne euh, UNESCO dafa defoon séminaire fii woo euh, dajale enseignants yi ak autorités yi nekk fii pour ñuy jàngal euh, suñu doom yi wàllum couple ni ñuy coupalee góor ak góor ak jigéen ak jigéen ñuy laaj loolu lan moo ci sa xalaat. gis nga lool c'est des faux mënul jàllati du jàll parce que ñoom moom suñuy doom te ñun ay jullit lañu. même bu dul jullit xel mu rafet nanguwul góor ak góor di sëy même bu dul jullit xel mu rafet nanguwul jigéen ak jigéen di këppante waxuma say këppante la ñuy def waaw mais góor gi sëyee góor mais li ci caayam moo ne ci caaya ki muy tëddee eh, alquran ni ak tëtuna rijaala shahwa min dooni nisa naka la góor di rombee borom musóor di dem ci borom caay ni moom dégg naa président àddu ci dégg naa ko mu ne loolu mënul nekk xaalis jaralu leen ko même bu ci àdduwuloon du nekk jamais même bu ci àdduwuloon moom président du nekk UNESCO bu leen neexee jël seen programme indi mais ñu jël suñu doom téye jeexul nañ indi seen programme imposé ko Sénégal ñu jël suñuy doom téye suñuy doom ñoo moom suñuy doom njàngum école yóbbul kenn aljana yóbbul kenn aljana mayul kenn lenn yàlla rek ay may suñ ñu bëggee jommal bëgg won doole ñu jël suñuy doom téye seeni école ne woye ñu jàngal miir bi nekk loolu miir yi mën nañoo séyante ah fu ak góor ak góor di séyante miir ak miir mën nañ fa séy di nañ boole miir yi kon mënul nekk dafa am benn àttikat bu amoon Israël ay àttikat yu fa nekkoon euh, ñu di leen jamaale di leen jonge ni kiyee gën a aay kiyee gën a aay am benn waay bu am nag ki am fas léegi nag ñuy xëccoo mool wi boroom nag bi ne nagama jur moolu fas bi boroom fas wi ne ko sama fas a jur mool bi ñu ne nañ dem ca àttekat bu njëkk ba ñaar ñi doon eh, dóorante biñ ñëwee ci kooku rek mu gaaw nuyu ko dóor ko cent mille francs kooku ne ko toogal mu toog ki yor ki yor fas wi taxaw ki yor nag wee joxe cent mille nee na moo jur mool wi fas nag wi mu ne ko luy seen tànk mu ne ko moolu fas wi lañ doon xëccoo ñun ñaar mu ne fasama ko jur ma ne ko sama naga ko jur mu ne ko xanaa gisoo soo noppi fas wi nim niroog noppi nag wi doomu nag wi la foofu nit àttewul cent mille la àtte bari na ci dëkk bi waaw wax naa ko fii léegi xool kaaba gi nekk màkkatal mu karama ko julliti jubloo fa amoo julli dañ koy wóor ñépp di julli ñuy dem di tabax jàkk ci eh, kaaba ci Sénégal gi luy ndeyam luy ndeyu kaaba Sénégal ak ab téere bu ñuy génne ba fi alxuraan luy ndeyam mi jarul sonn du dem fenn ak ñu dem bay jël jigéen di ko def ilimaan jigéen lu muy jiite jigéen mënta jiite jigéen mënta jiite góor bi yonent bi sosoog léegi déggoo benn njabootam bu mas a jiite léegi fi ñuy duggaat mooy euh, ngor parce que dañuy gis jamono ji da ngay ànd ak nit ba dara mu yor alal gu bari jékki-jékki rootul nga bàyyi ko dem te ànd ak keneen ñu ne laaj Isaas yow loolu nan nga ko gisee. waaw xam nga ci yar yi la rek gis nga deret dafa am solo gis nga kii kii dafa am solo fii muy nit deret dafa am solo am na ñoo xam ni buñ doon lekk. buñ doon xiif ba dee du ñu lekk métt jamais sëñ Babacar Si nee na xiif du ma tax bëgg yàpp duma tax a lekk médd mara naan duma tax a naan póotit yàpp waxañ la ci waxoon da ngeen naa xamul waxañ moo tax ma defal leen ko médd waaw sëñ kër loolu la daan wax mii yow bu ma àndee yow nga di ma manal ñuy ànd di soppante xalaat te aw ma alal maa ngi lay jox suma xalaat nga ma di ma jox sa alal ma nekk ak yow nga nekk un ministre par exemple ba nekkatoo ko Sénégal nag buñ la falee boo muusee da ngay dund folleeku ga doo ko jël pal gi boo nitee laa wax waxuma dof yi di ma seetaan ñuy waxuma leen soo nitee bu ñu la falee sit bi yaay DG bi dundal folli ga doog a ñëw jël fal gi fal gi dana xumb folli ga dana wéet mm-hmm. looluy fii pal gi day xumb mais folli ga day wéet fal nañ ma un ministre fal nañ ma président de la république tey maa nekk ci Sénégal maa ko jiite dundal bés buñ la wàccee ndax wàcce nañ say morom wàcce nañ fi bu dee ci Sénégal Abdou Diouf wàcce na moom Ablaye Wade wàcc na ku fi ne mag yi na dund bis ba na xool ñee bañ wàccee seen kër ya nu mel wéet na lool te bu ñuy tukki amul motaar yu leen dara ci eh, ci ci ci ci embouteillage bi lañuy ñuy nekk ak fa bu tàkk ñu taxaw kon man président bi fi nekk bees naa dund ñii ma jiitu seen démb bañ ko doone xumboon na lool waaye bañ demee ba doonatuñ ko wéet na lool dana tax nga tiit ci lii ñu la jox dana tax nga nite lool waaw parce que lu xumb dana mas a tas waaw tey kër goo mas a dem kër yi xumbati du tas yi muy këru daara yi Tuubaa day gën a xumb rek Tiwaawan day gën a xumb rek Njaasaan day xumb rek Yoof day xumb rek xumb rek waaye fu ministre nekkoon ñu wàcce ko nga daan fekk mbooloo kenn nekkatu fa parce que yoratul lum leen yoor yorul lum leen yoor ku yooratul gaa yi yooru looy yoor ana ngor ngor nag bu fekkee yow su ma ànd ak yow intérêt ko lal su ma yoratul intérêt ki yor intérêt nga dem ci moom bu fekkee suñu ànd ak man yow yaa ko lal yàlla rek laa ànd ak yow boo doon yëy xeer ma yëyle la ko dama benn jigéen duma ko tudd nag waaye lim def aayul tuwaawoon la dëkk dañ ko may jëkk eh, dafa am ku muy bëgganteen papa ji ne du ko ko may te yàgg nañu waa ji teral ko lu la ko defal lu ñetti dërëm yu mu am jox ko di ko aaf di ko uuf rek pour bañ mu moy bañ mu caaxaan yaakaar koo def soxna ñu xëy rek bàyyi ba ne ko dama lay may diw xam naa ko ñu toog ba yiiw mu ne ko ah pap bëgguma kii de kama nekkaloon laa bëgg mu ne ko kii laa lay may mu ne ko bu la neexee sa cër ndax bàyyee moom maye waaye nangu nag ak lànk dooma ko moom bàyyi moom moom maye waaye nangu naa ak lànk naa dooma ko moom mu dem ca farwa farwa mu doon bëggante dañ xañ ko ko mu ni ko tëddal nelaw billaahi wal kitaabi mu ni ko ah, mu ni ko suma dee naa dem safara boo ma soxlaa njaaloo ak man man ma wor la ñu njaaloo moo ma ko gënal su ma dee lu neex yàlla na ma ko def yow jaral nga ma yàlla lakk ma ndax dooma tëral mukk ñu may may beneen góor xëy jubal ci baayam ne ko kii nga ma may du ma tëddee dama sàkku na ma ma bañ gis nga kee nga may xañ la ma ko wax dinaa la ko wax nee naa ko man safaraa ma gënal aljana tey bu ma la wooree gore gore dafa baax de am na safara moo ma gënal aljana wax naa ko ko ba pare waxtu mu bëggee na ma tëddee su ma dee na ma yàlla lakk bàyyi ba woo ndaw sa woo faroo mu ñëw jëkkër ja mu ne ko dindi naa sëy bi balaa sama doom di njaalo ci woo kële mu ñëw mu jël ko may ko ko jaboot nañu loolu mooy dëgg mais wor yuy pour lan la demal ci wa même ba ci wàllu politique bi am na ci waaw ba daara rek nga dul gis loolu ñaare xayna na dana am mais fa nekk di taalibi siñ Tuubaa taalibi Alaaji Malick taalibi maam Cheikh Omar ñu toog a toog ñu ne wor nga sa sëriñ yaa ci beneen sëriñ bu dee am na c'est rare ci politique rek ak wàllu àdduna nga koy gis ànd ak borom alal société daanu na nga ba ko toppi keneen eh, nit sa daanu na nga ba ko wax fi lu ñépp dégg lu ne weng xëy génn ca loola dem ànd ak ka nga saaga woon yow ba doomu aadama nga ak luy firi ko bëgg koo dëggal accepté ko non parce que diine nangoo ko te ay musulman lañu xaadimu rasul nee na alxurru xurrun maalam yëttakallam sëñ Bàmba nee na ko waxagul yaa moom sa bopp soo waxee sa waxala yilif la nga noon duma ko def bu ko def ki ñu yaakaar muy Muhammad bu seyri yi nee ko mboolem kuy wax waaw yaa ko gën a dëggu boo ne déet déet la boo ne waaw waaw mais kenn xamatul ban réew la ñu ne Sénégal kenn xamul lu fi xew léegi-léegi nag ma wax laa affaire nit génn romb la motaar yi dar ko wala mbooloo dar ko fekk na moom ci boppam yëgul ne mbooloon ko dal parce que lim def ba am lii xam ne ne gàcce la mm-hmm. mais nit nit rek la sa yuur day mbalax sa xel di mbalax bi ci des ki la ko bëgg dagana la da ngay intérêt mais daganul man nit ànd ak man sama intere la mais moom fi mu jaar ba ànd ak man du intérêt yenent bi nee na bu sa nit juumee wax ko dëgg bu nekkee ci dëgg jàppale ko bala ñu ko néewal doole as gor day gore rek euh, làmp Fall yu nekkoon Thiès waxuma maam Cheikh Ibrahima Fall bu mag ba de Lamp dafa laaj seen Cheikh Mbàkke ne ko juróom-ñaari ati bekkoor yi Sénégal bekkoor ñëpp jaay seen ngor te jaayoo sa ngor mu ne ko waxal astaxfirullah ma dog laa tontu mu ne ko bàkkaar la mu ne ko làmp ne laa sëñ Cheikh Mbàkke ne ko làmp mu ne ko Mbàkke ba muy ñetti yoon mu ne ko gor soo dégg ñu ne jaay na ngoroom amuloon ngor ngor ni mu neexee dara amul njëgam gaa yaa ngoog koo dégg ne jaay na ngorom jëndee ko goree di sëñ Cheikh Mbacke nee na amuloon ngor ndax ngor da amul njëg kenn mënu koo jënd kon kuñ ne jaay na ngoroom rek yoru ko ku yor ngor doo ko jaay ndax doo gis lu ko jënd ngor amul xaalis ana maam Cheikh Ibrahima Fall làmp bu mag ba tànki neen talul peñe karawam yor këllam sëñ Touba di xiblaam rek mu ne du ko bàyyi tey anamu xilaafa Ahmadou Bamba fii xilaaf maam Ibrahima Fall fii bu waa kër sëñ Touba soxlaa wax ko waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall du taxaw boo àndi nit àndal nit ki pour doon ko waaye bul ànd nit ndax doon na ko